asalaamaaleykum sama gaañu ñu ngi leen di ziare bu baax baax fii ci euh, Rewmi Sport euh, talaata le 27 euh, août 2024 ñëw ci xibaar yu mujj bu fekkee ne abonné ko abonné partage lii di vidéo bi vraiment lu ama am solo la pour lu ci wàllu chaîne bi pour jàllale say pic aussi mën nga ñëwoo ci numéro yooyu disponible na ci toutes les plateformes ñëw ci xibaar yi dañ koy daal di commencé donc fële ca Manchester United Manchester United ak Burnley ngi dag di wéccoo deux jeux yu mujj yi pour euh, ki nga si ne moom la ñuy tuddee euh, Hannibal annibal nag li ci bees dama apprécier ko bu baax a baax vraiment mercato bi dafa am ay dirigeants yoo xam ne dama leen apprécier les dirigeants du Manchester United ak euh, aussi dirigeants yu équipe bi di Chelsea. ci façon bi nga xam ne la ñuy déroulé seen euh, seen mercato surtout seen côté jaay ak seen côté jënd ak lépp lépp mucc ayib donc dégg nañ ñu ne ki nga xam ne moom mooy euh, Manchester City dina ci am clause de rachat maanaam bu ko bëggee jëndaat dina ko jënde te dina ko jaay 9 millions dèjà jaayee ko 9 rek baax na dèjà am ci pourcentage rek baax na mais mooy clause de rachat loolu moom moo gën a muccate ayib ki nga xamante ci ni moom la ñu tuddee Nottingham Forest mi ngi maintien ba tey sur le dossier de ki nga xam ne moom mooy a dëgër mais dañoo dem ba ci digg ba dossier bi di continuer moom mooy Santiago Gimenez en même temps aussi di convaincre ki nga moom mooy kii di Feyenoord leneen li nga xam aussi moo bees dossier bi mooy ki équipe di Bayer Leverkusen dugg seen ci dossier bi ak doole te loolu bu fekkee ne Bayer Leverkusen daf ci série dina xaw compliqué pour Nottingham parce que Bayer Leverkusen mi ngi Ligue des Champions te moo gën a pare donc ci côté sportif peut-être économiquement nag Bayer Leverkusen mënta rivaliser ak club bu anglais bu mel ne Nottingham Forest et pourtant moom mooy jour bi nga xam ne Lyon jënd na ko te mu gën a cher ci seen histoire ñu koy tuddee Mangala di milieu de terrain belge bi nga xam ne yéen a ngi fàttali ko ba ñuy ñëw ci transfert bi ñu waxoon leen ne Lyon ko jënd yaakaar na dina ko mën a jaayewaat xaalis bu takk mais dafa mel ne Lyon la mu yaakaaroon ak la am bokkul ndaxte kii di Mangala actuellement mi ngi ci yoon pour dem ci euh, club bi di Everton bu Idrissa Gana Gueye sa transfert bi nurul doon transfert sec mais plutôt un euh, prêt maanaam daal dañ kaa na la able imagine le bi nga xam ne moo gën a cher ci sa histoire club nga jël ko able ko ci benn saison kooku day wane ne am nga problème économique bu jégg dayo club boobu di Everton nag toppul kese kii di Mangala mi ngi topp aussi kii di Sofiane Amrabat mais nag bu ñu moytuwul du ca dal ndax ce équipe bii di Fiorentina fa kii di Mangala nekk jot fa kii di euh, Amrabat nekk. jot naa trouvé accord ak benn club bu ñuy tuddee euh, Fenerbahçe euh, donc en Turquie waaye accord total am na diggante Fenerbahçe ak ki nga xam ne moom mooy euh, Sofiane ak kii di Fiorentina prêt 2 millions avec option d'achat obligatoire bu toll ci 12 millions léegi nag day mooy équipe bi di Fenerbahçe donc jéem a convaincre kii di Sofiane Amrabat kon lépp mu ngi ci loxoy Sofiane Amrabat tot Everton def na proposition pour moom ki nga xam ne moom mooy Fenerbahçe aussi maintenant c'est à lui donc de décider ban club la bëgg a dem. championnat Turquie ou Angleterre. ka nga xam ne moom jóge na Turquie dem Angleterre xëy na yenn ci supporter yu Manchester United yi dinañ wax ne donc joueur bi nii li ñu koy proposé bëri na ka jóglu moom moo doonoon le joueur parfait li ko préféré donte Masraoui aussi il xam ngeen ne Dalot ak Luke Shaw donc diruñu compte à 100 pour cent mais kii di ka jóglu am na le niveau pour jouer le côté gauche et le côté droite kon ki nga xam moom la ñu tuddee Brighton maintenant ñi nga xam ne amuñu sens pour seetaan ko jublu lu bëri peut-être que cette année dina am sens pour gis qui est Kajuglu la Turquie ki nga xamante ne moom la ñu tuddee euh, Solomon comme ni ñu ko fi woon doomu Israël bi donc leer na naa léegi signé na contrat ak club bi nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, kii di Leeds United équipe bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Leeds yi na ci liggéey mucc ayib ndaxte demoon nañ ba diggante am na ay yenn club yu pare woon pour yàq transfert bi mais nag doomu Israël bi euh, dafa am gëm joxe xas ba joxe kàddoom en plus désiré donc pour rester Angleterre donc loolu moom moo tax mu mujj dem ci club boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee kii di Leeds United transfert bi nag opéré kese la amul option. pour la première fois bi mooy bu njëkk ñu gis si ñaari club yi Liverpool et Barcelone kenn ci ñoom ñaar joom woo équipe bi di Juve way xam ngeen waxoon nañ leen ne Federico Chiesa moom jógee li Juve la bëgg actuellement léegi nag lu muy xool projet bu baax projet bu ba taxaw na bu Liverpool bi taxaw na donc ku ci gën a sérieux dina fa dem ñu yëgaloon leen ne donc contact am na diggante Liverpool et Chiesa euh, contact diggante euh, Barça ak kii mais nag benn euh, contact amul woon diggante Juve ñaari club yooyu léegi nag la Liverpool mars benn offre amagul nag mais bu fekkee ne jokkalante am na diggante Liverpool ak Juve léegi kon équipe bi nga xam ne mooy Liverpool yóbbu nañu seen première proposition après soo son compatriote ñu koy tuddee donc Bilal El Hanous donc di milieu de terrain buy football fële ca Gang waaw Gang comme ni ci dëkkoon ci dernière vidéo bi mooy équipe ba nga xam ne fële kii di Mick Mendes jóge di gardien de but bu signé fële ci Chelsea nekk le huitième gardien des Blues donc ki nga xam ne moom la ñu tuddee euh, Leicester City AG club kii di Nampalys Mendy dinañ ko recruter dañ koy donc jëndee lu toll ci vingt ak bonus équipe di gang donc dina ci am pourcentage de dix donc kii di Bilal Arhanos jour la baax a baax gars tamit dinañ ko mën a découvrir cette saison. dañuy wax ci doomu Gana bi xam nga nag wax Gana wax Jory Talla Mohamed Kudus ay ñoom ayo Thomas Partey euh, ki nga xam ne moom mooy donc Asamoah donc y a beaucoup de joueurs et des légendes yoo xam ne passé nañ ci club boobu ci équipe nationale Gana yaa a aussi ki nga xam ne moom la ñu tuddee Edmond Baydo Baydo benn attaquant la buy fubal fële ca Sangdal dina fa quitté pour dem fële ca RB Salzbourg ci championnat bu Turquie bëri na ay club anglais yu ko bëggoon transfert bi nag dina mat 4 millions moo tax sax euh, transfert historique lay doon ci club boobu nga xam ne moom mooy parce que seen joueur bi gën a cher ñu ko jaayee 2 millions donc bientôt ki nga xam ne moom la ñu tuddee Baydo dina quitté foofu ci Sangdal wax ci ki nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, Milan Skriniar mi ngi continuer di insister si euh, proposition bu équipe bi de Al Nassr waaye xam ngeen ne Paris Saint-Germain pour li nga xamante ni mooy accepter mbir mi mais nag fi ñu toll nii xam manque de patience ci ñu bëgg dem Arabie Saoudite comme ni ñu leen ko fa annoncé woon ci vidéo bu bi mercato bi Arabie Saoudite li bëgg mooy mu yam le 2 au lieu que donc ki nga xam ne mooy euh, kii di Al Al Nasser mi ngi continuer di négocier ak moom. Samuel Sikot lañ koy wax xam nga ne boole ñu waxoon ne keroog marché jot naa toog ak les indésirables waxtaan ak ñoom. bañ ko waxee ba tey nag y' a Veretout ñu koy digg côté ren et maintenant Samuel Chicotte donc di défenseur central bi euh, accord total am na diggante Marseille ak kii di Lazio de Rome li des mooy Lazio de Rome jéem a convaincre ki nga xam ne moom mooy Samuel Chicotte pour mu daal di mën a ci club boobu ne mais xam leen daal accord total am na diggante Marseille kii di Lazio mu des diggante joueur bi ak kii di Lazio de Rome on verra. ba xam est-ce que Samuel Chicotte pare na pour dem ci club boobu nga xam ne moom mooy Lazio de Rome dañuy wax ci kii di Alexis donc Salamaker di donc attaquant belge bi nekk foofu ci équipe bi di euh, waa Milan fi ñu toll nii y de équipes yoo xam ne ñu ngi koy consulter euh, pour jënd ko euh, te Milan ubbi na bunt yi pour jaay ko ci dernier jour mercato bi mu doon lu étonnant lu bette ndaxte kii di kii di nga xam ne moom lañ tuddee Paolo Fonseca di ki leen tàggat daka fonk te bëgg jël xaalis bi utiliser ko ñoom dirigeant yi pour jënd ko ci demee Tammy Abraham am mi nga xam ne toujours y a des yi nga xam ne am na diggante euh, kii di Milan ak jour bi maanaam daal joueur bi mi ngi ci loxoy équipe bi nga xam ne moom mooy AC Milan ba tey. léegi nag am na sax yenn ci ay euh, sources yu ñuy xibaar ne am na nu muy demee Milan ak Rome dinañ toog ci taabal pour jéem a waxtaan weccoo kii di Alexis Salamaker ak kii di Tammy Abraham. Hmm. waaye bu loolu bu amee moom Euh, peut-être que Rome mën naa gagner Milan parce que Rome a déjà recruté son attaquant Dovbyk le meilleur buteur de la Liga la saison passée et que Salama Kéré polyvalent et la saison passée mu def saison bu rëy a rëy fële ci boobu nga xam ne moom mooy Milan toujours donc foofu ci biir euh, ñuy des wax ci ki nga xam ne moom la ñuy tuddee kii di Woutwilgox donc di attaquant euh, hollandais bi nekk fële ca Bordeaux en anglais moom dina fa quitter euh, pour dem ci ñi di fële ci sax si Amsterdam transfert bi depuis euro bi dikkoon nañ ci bañ naan leen pour la première fois presque ñu gis euh, benn euro am 100 euros li nga xam ne moom mooy Ajax Amsterdam et maintenant bientôt Woodwigers dina signé contrat ak Ajax Amsterdam. FC Barcelone gagné na équipe bi di Rayo Vallecano ñett ñaari bal ci euh, benn 2-1 donc ki nga xam ne moom mooy kii di Pedri Gonçalves ak ki nga xam ne moom mooy Dani Olmo moo ñëw dugal. ki nga xamante si ni moom la ñuy tuddee FC Barcelone trois matchs trois victoires ñetti match ci tegaloo bis nekk Barcelone gagné ko lii nag mi ngi doog di am depuis atum 2018 2019 boobu yaakaar naa ne c'était Ernesto Valverde kon depuis 2018 2019 Barcelone defut li ñu tuddee 9 sur 9 maanaam gagné premier match bi deuxième match bi troisième match bi loolu nag li muy wane mooy un début parfait pour kii di Hansi Flick ku wax Barcelone wax seen recrue bu bees bi di Dani Olmo nga xam ne ay problème la amoon pour inscription par rapport ak plateforme masse salariale bu li nga xam ne moom mooy la Liga exigé ci li nga xam ne mooy championnat bi Dani Olmo tey jii nii la def début ci match bi Dani Olmo premier match premier bi premier aussi homme du match moom ki nga xam ne moom mooy euh, Dani Olmo moom nag euh, Dani Olmo bañ ko bi mu ne leen préparé woon la moom Lamine Yamal parce que ko bu ma dugalee ñëwal jàppale ma ñu def lii di bi beneen bi mooy Lamine Yamal euh, kii di Dani Olmo nee na lii lu mu woon la parce que ça fait des années et des années Barcelone nekk li nga xam ne mooy club de rêve am Barcelone na mais am na lu ñuul ci saw mi ki nga xam ne moom la ñu de Marc Bernal dafa génn sur une blessure blénjur bi nag pas n'importe quel blénjur mais blénjur bi jommal xale yi ki nga xam ne si ne moom la ñuy tuddee Marc Bernal am na ñu wax ne dafa amee ligament croisé li tax ñu ne am na lu wax ne parce que dañ fa néewlu luñ mën a confirmer à 100 parce que xibaar yi ci bëri bëri loolu la ñu wax léegi nag demee di ba yem ak le 28 FC Barcelone dinañ def seen i test bu ko defee ñu génne wax lan moo jot kii di Marc Bernal bu fekkee ligament croisé moom mënees naa jàpp ne daanaka ci biir saison bi daanaka du ci football la waaye taskatu xibaar yu ci bëri bëri nee nañ ligament la moo tax fi ñu toll nii li ëpp ci ay chance mooy mu doon ligament croisé ndaxte beaucoup de journalistes confirmé nañ ko jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm incha